kon nag euh, jamono ji ñu ngi fi nga xam ne nag mooy si kaw tali bi gaa yaa ngi nii ñoom it ah ñu ngi nag mooy liggéey bi. kon nag euh, yéen a ko gis ñu ngi nii kaw tali bi euh, di def li nga xam ne nag mooy liggéey bi ki nga xam ne mooy nooy Ousseynou Dabo egsi na bu doon nag am yaa ngi live on direct on Gambian Talents TV. Talent TV. wah naka ngeen def. feel, wah. fiil. fiil waaw. you feel yellow. you feel happy. ah kon nag yéen a ko gis ah gars yi ñoom it ñu ah si kaw ah si ah, ah di nuyu ki nga xam ne nag mooy Ousseynou ah, Dabo mi nga xam ne mooy nga Jangan Haji nak. Jangan Haji. Nit yaa ngi bari lool. Bro kam? Bro nak kam? Wow. ngi fine. Yaa maa ngi Alhamdulillah. Oy Alhaji. Noo gisee Lo, Noo Today we are receiving our president. Your president. Our president. Who is your president? That boy leader. That's what you are looking for. Bro. Ya, Bro. Bro. Bro. Bro. Bro. Bro. gisandoor bro dama baaral nga wàccal ma mun a jël yéen a ko gisandoor ñu ngi fii nga xam ne moom Banjul di ah nit ñaa ngi génn gitu. ah yéen a ko gis gitu. baro kantoon lema aka maabaloon lema ay maabaloon lema just pass in this country no matter what and we love each other I see I see I see I see we have to be strong strong strong because we do the world the world contest, the world world content from the world contest, at the end we do the, the how to call it, region congress and the national congress. Only the UDP party is win that country in this country. So we are not going to be, allow anybody who want to be rule our destiny. Never impossible. Never impossible, bro. You know what?